وسلم تسليما كثيرا مباركا ورضي الله عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله اخواني في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كناو بني سنت تبارك وتعالى جولي سيدنا محمد علي عليه الصلاه والسلام بك جولي دي نيو لين دي نيو اك فين مانا نه دي لين نيانال يالا دي ساكو سين نيان بو باخ باخ باخ di ziara sunu kilifa yëpp ñu ñi ci jiitu mooy sunu xalifa généraux yi di leen ñaanal yàlla yàlla bàyyi leen fi lu yàgg lool di sàkku seen ñaan bu baax a baax a baax a baax tabarakalla di am mbégte ak kontante bu baax ci sunu bokk yi ñu àndal di sunu techniciens yi di maam Cheikh Diop ak El Hadj Cissé di leen ñaanal yàlla daa iman yàlla defar seeni mbir defar sunuy mbir te dolli ñu sutura bu baax a baax a baax a baax di am nag tey mbégte mu yaatoo yaatu wax dëgg yàlla ndax sunu émission bi di fàttali bés bi weeru koor yi commencé ba tey dañ ko li ci ëpp dañ ko jagleel alquran ndax alquran wàccuwaayam ci ñun moo toll noonu waaye rawatina nag weeru koor bu jotee dëgg dëgg yàlla war nañu nafaraat alquran mu am mbokk moo xam ne nag defal ñooñ daara loo xam ne dëgg dëgg yàlla wa daara war nañ ko ñaanal yàlla yàlla yokk mbiram ci zahir ak ci batin ak ñi mel ni moom ñëpp te muy PDC Dia bu seniko def concours bu am solo jagleel ko alquran nga xam ne alquran moo gën ci li ñuy dépenser sa alal fi gën ci lay dépenser sa alal mooy alquran dëgg-dëgg yàlla mu jël lu tolloo lu vingt millions wala lu ko ëpp fuuf ndax premier bi rek moo gagné 20 millions. comme niñ ko seetaanee ñun ñëpp dëgg-dëgg yàlla sunu doom jële di Mouhamadul Mahi Touré ca Kaolack gañe ko ak ka topp dëkk Jurbel ñoom xale yëpp yàlla yàlla def leen mag mag ñu am barkeel ndax lii bu gën bari ci senegal dana gën a baax ndax alquran mooy mooy surtout alquranu xale bokk na ci liy delloo merum yàlla subhanahu wa taala kon nag loolu di ko bari lu am solo la ki nga xam ne moo ko taxawee muy PDC Dia yàlla na yàlla dimbali ko ñu koy ñaanal di ko bëggee bu baax a baax ndax wax yàlla doomu daara yëpp la ko defal wutee nag ñi nga xam ne ñoom seen doom yi jàngi leneen lañ gën a fonk que seen doom yi jàng daara waaw ah, kii jàngi leneen man ngay sonn ci moom defal ko lu ne waaye ki jàng daara moom tàpp rek damal jàngi rek dara doo ci seet dara ñàkk xam alxuraan la ndax alxuraan moo lay teral fii moo lay teral fële yal yàlla fay leen di ziare bu baax suñu mbokk yi nga ne ñu ngi ànd ak ñun ci émission bi di ko rafetlu ku mel ni imam Sakho suñu mag suñu ustaaz di ziare bu baax suñu mbokk Mouhamadou Mountakha Dramé Babacar fële ci Sénégal moom it ñu ngi koy ziare bu baax mbokk yi ñu nekkoon ci waxtaan diggante way jur ak doom ak way jur xaq yi dox ci diggante moom euh, ñëwoon nañ ci def nañ ci. di ci fàttaliwante comme ni ñu waree ndax yonent bi alayhi salaatu salaam lim ci jàngale dafa bari lépp kenn mënu ko wax waaye jël ci ay tomb rek di ci fàttaliwante gannaaw bu ko yàlla jàngalee ci alquran ni ñu war a fonkee woy jour te ñu jàngaloon na waxada rabbuka jàngaloon la aaya bi ci sorti axxaaf yépp nga xam ne yàlla bu ci ne dañ ciy jël ay baat rek ndax lépp sax duñ ko jël ndax waxtaan yi moo demee noonu Euh, bëgg jël nag ay addis yonent bi alayhi salaam ndax daf noon maa ngi leen bàyyil ñaar yoo xam ne feggee nañ ci jàpp du ngeen reer mooy kitaabillahi wa sunnati aw kama qaala alayhi salaatu wasalaam moo tax ba jàngaloñ lañ la waa ji ñëwoon ci yonent bi ne ko dénk ma loo xam ne dina ma jëriñ ndax saxaaba yi ñoom dañ daan laaj yonent bi alayhi salaatu beneen waaye dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam nga way jur léegi xam ne way jur wu waa ji dafa ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam jaa rajulun ila rasul alayhi salaatu wasalaam fa qaala inna lii waalidatun anfaqa alayha wa hiya tusini bi lisaaniha fa kayfa asnaa fa qaala alayhi addi xaqaha fa wallahi law qataat lahmuka ما أديت ربع حقها أما علمت أن الجنة تحت أقدام أمهات فسكت الرجل وقال والله لا أقول لها شيء ثم أتى رجل والدته وقبل وقبل قدميها وقال يا ولدتي يا والدتي بذلك أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم dafa am benn waay bu ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam hadis bu daw yaram mu ñëw ne ko man daal dama am way juru jigéen xam nga jigéen naka jekk <laughs> ñooñu jur waaye dafa am ñoo xam ne dañoo xaw a tàng surtout bu màggatee mu ne ko lu ne maa ngi ko koy defal waaye lu ne lu bon lu ne mu teg ko sama ci sama der bi man daal lu ma mën maa ko koy defal wane wax ju ñaaw rek la sàlloog man saa bu ne lu bon la wax yonent bi ana na may def yonent bi ne ko mani demal nga joxe ay demal nga jox ko ay xaqam demal toppatoo say wayjur demal dab bànneexu sa wayjur wu jigéen demal topp ko waa ji daal di ndeysaan comme ñoom wax yonent bi samaan wa ataa rek bu yonent bi waxee amut amatuñ réfléchir amatuñ sekk c'est-à-dire comme ñun ni ñuy def da ngay ñëw seet si ustaas bi wala imam wala sa sëriñ ma wax la nga naan mais c'est que maam vraiment ñoom amuñu loolu bu ñu leen waxee rek ñu daal di cay topp waa ji daal di sëgg daal di jooy noppi jooy jooy xol ne wallahi parce que yonent bi aleyhi salaam daf ko ne maa ngi lay waatal ne law xataa lahmuka donte kon da nga doon dagg sa yàpp yaram di ko jox wala ngir moom ma uditu ruba haqqaha nga xamne haqqam buñ ko xajon kat ben bi sax Allah allahu akbar sa yaram nga koy dag diko jowal nga koy dag ngir mom yonent bi nako sa wayjur wu jigen lani demal nga jox ay haqqam ak lu muy khun khun ak lu muy naqari naqari deret demal nga jox haqqam ma ngi lay wadal ci yalla mi xamne momo yoni ci deug ne sa yapp yaram yi boko don dag du tax xaq yi nga ko yoreel buñ ko xaajoon ñeenti xaaj benn xaaj bi nga nga nga nga joxe ko kon lii diis naa xew a jur diis na de mu ne ko xanaa da xamut ne xanaa da nga xamut ne aljana mu ci ron ndëggu tànku ndey ndax ndax nga xaw xamut waa ji teg ba ci kanam mu ne yonent bi wallahi maa lay waatal ne dootuma ko waxati dara wallahi laa aqulu laha shay dootuma ko waxati dara lu def baax na noonu la doom war a àndee gooy jur lu def rek baax na ndax moo la jur yonent bi alayhi salaatu mu waa ji daal dafay jóge ko dem ci yaayam bi mu ñëwee rek mu daal di rot ci suuf daal di fóon ñaari ndëggu tànku ndeyam ne ko ñun di sunu yonent bi lii la ma digal ci yow ci yaay xam nga ne moos dina deltu ginnaaw ndax sa doom yaay ni la bëggee kenn bëggul leen waaye xaq jur moo diis kon yow mbokk mi muy man ak yow bu ñu yàlla nattoo ñu am jur wu naqari deret yàlla moo la natt gën a la góorgóorlu ndax sa fay moo gën a nar yaatu waaye du la jox mukk droit nga ne def lu ma mën yëpp def naa ko maa ngi koy jox lekk kon du ma fa dem ndax su fa dem dafa may xas dem fa diglu ay xasam xas yi ñaan la ci yow xas yi jàppe ko ne ñaan la ci yow beneen waaye dafa ñëw ci wala hadis bi xam ne incha allah moom lañ nar a tëjee te dem nag ci xam ne xàq yi nga xam ne moom la way jur yoreel doom abi zaralil xafaar muy sahabu bu mag boobu dafa wax ne samixtu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul man masha li ziyarati walidayhi كتب الله تعالى له بكل قطوة مئة حسنة ومها عنه مئة سيئة ورفع له مئة درجة فإذا جلس بين يديهما وتكلم معهما بطيب كلام أعطاه الله تعالى إلى يوم القيامة يوم القيامة نورا يشع بين يديه فإذا خرج من عندهما خرج مغفورا أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الله أكبر ينتبي أبو Abu الخفار al لنا dafa ينتبي نه كيف na yonent dox ak tànk jóg nga dox ak tànk wala nga dawal sa oto dem lan moo la tax a jóg dem di ziyaare say waajur say waajur fii ñu dund ak ñu génn àdduna ñoo ci yem yonent bi alayhi salaam nee na jéego boo seq yàlla dana ci bindal téeméeri yiw téeméeri tuyaabo yàlla dana la ci faral téeméeri bakkaar yàlla dana la ci faral dana la ci yëkkati téeméeri daraja lii ci waajur rek lañ ko mën benn paa boo séqi da am téeméeri tuyaaba de yàlla dana la baal téeméeri bakkaar yàlla dana la yëgadeel téeméeri daraja mu ne boo demee ba yegg toog seen kanam moo xam ñu dund walla ñu génn àdduna kon say waajur boo leen buñ génnee àdduna dem fañ leen suul di leen ziyaara ji xàq la boo leen yoreel kon yonent bi aleyhi salaatu ne boo demee ba yegg toog di waxtaan ak ñoom nag waxtaan wu teey waxtaan wu teey bu ñuy dund bu ñu génn ay daaduna nga leen di ñaanal yàlla nee na yowmal am yàlla dana la jox leer goo xam ne bu ñëpp lëndëmee yow da nga leer goo xam ne mooy sànnee ko sa kanam nga nga nga xam fi ngay jaar leer goo xam ne tabaaraka wa moo la koy jagleel ngir li nga defaloon say waajur nee na boo fa jógee ko ca ñoom di ñibbi doo benn bàkkaar dootu la topp nanga fay génn set wecc ci bakkaar mbokk yi lii ci way jur lañ ko mën a amee kon nag fàttali lañ noon def diggante xaq ndax yonent bi li mu wax yëpp alxuraan li wax yëpp diggante xaq bi nga xam yoreel xaq say wayjur xajut ci weer xajut ci xat waxuma la waxtaan wu demee nii su ko defee in uridu ila l islah ma stataxtu wa ma tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim ñaan yàlla lépp luñ fi wax rek yàlla na yàlla def ci barke ba yàlla may ñu jëfeeko jëfee ko salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu seen naafila bés bii di fukkeelu fan ak juróom ci weeru koor wi dana nekk juróom benni raka incha allah raka bu njëkk bi da ngay jàng fatiha eh, benn yoon eh, raka bu ne dangay jàng fatiha benn yoon qul huwa allahu ahadun juróomi yoon soo paree nga zikar tur yàlla bi ñu wax ya razaqu ya razaqu yalla yalla may ñu wërsegu yaatu bi liñ bëgg def ci koor gi yëpp yalla may ñu def ko ba ci wala koor bi jay Mustafa sallallahu alayhi wasallam